À 24 heures après l'élimination des Lions du Sénégal, l'heure est venue de faire un bilan de cet échec. Certains supporters se disent le Sénégal devait se qualifier au moins au deuxième tour, puisqu'on que cette équipe a du talent et compétition. Les Gaindés ont été éliminés au fair play, dans l'histoire du mondial. Pourtant, ils ont bien débuté en battant la Pologne. La confiance s'installe Et que dire de ce match nul à deux vitesses alors qu'il était favori à deux reprises avant de se faire rattraper par les samouraïs Qu'est-ce qui manque à cette équipe Une équipe où il y a Sadio l'un des plus grands attaquants au monde. Une équipe où il y a Khalidou Koulibaly, l'un des plus grands défenseurs du monde, pour ne citer que cela. Des joueurs de classe mondiale. Certains nous diront par manque de chance, ce match perdu était-il prévisible Au le premier des Sénégalais a envoyé un message fort aux joueurs en L'avenir de cette belle équipe nous comble d'espoir. Certains Colombiens pensent même que les Lions du Sénégal méritaient de se qualifier. Alors, si le football n'aimait pas le Sénégal. Les Lions de la Teranga ont été éliminés comme toutes les équipes africaines. Non, vraiment, l'Afrique n'a pas la baraka de Coupe du Monde. À chaque fois, la plupart sont éliminés au premier tour. Est-ce qu'on a le niveau mondial du fait qu'à chaque fois on critique l'arbitrage L'Afrique est souvent victime, selon certains passionnés. le Ghana, le Nigeria, récemment le Sénégal. Même en tant qu'organisateur en 2010, les Africains n'ont pu aller en demi-finale. Aucune équipe africaine ne jouera ces sixièmes de finale de Russie 2018. Pour rappel, l'Europe est le mieux avec 10 équipes en, en sixième de finale. L'Amérique du Sud à 5 représentants, l'Asie, une seule Les 16e de finale se joueront samedi. Voici les tableaux. Uruguay contre France contre l'Argentine, Brésil contre Mexique, Belgique contre Japon, Espagne contre Russie, Croatie contre Danemark, Suède contre Suisse, Colombie contre Angleterre. Russie 2018, KSTV. benn fan rek gannaaw ba ñu éliminer équipe nationale Sénégal ci coupe du monde Russie 2018 bi yu bëri ñu tasel nag am nañu naqaru xol am nañ dollu leen bett ndax dañoo jàppoon ne équipe bu Sénégal bi lu mu bon bon waroon naa mën a qualifié ci deuxième tour bi ñeneen ñi am nañu yaqin ak gëm-gëm que ak pas-pas bu wér que ne équipe nationale Sénégal bi am nañu lool ay joueurs yu fi ne yoo xamante ne war nañoo mën a qualifié lu mu métti métti ñu fàttali ne équipe gaynde yi équipe bii di Japon dafa qualifié ci kawam ndax fair play ci la qualifié ci kawam mu doon lu njëkk nag ci histoire coupe du monde moo ne équipe bu Sénégal bi ni ñu tàmbale woon dafa baax ndax ñi ngi tase woon ak waa Pologne daal di koy dóor ñaari bal ci benn wante match nul bi nga xamante ne bi moom lañu am contre Japon bokk na ci li gën a compliqué situation sénégalais yi moo ne Sénégal dafa nekkoon favori waxatuñ ko mu mën a Japon ñaari yoon waaye dal di xoolee ba Japon fekk ko fa équipe bii ñuy wax samouraay yi ñëw fekk leen fa daal di égaliser ñuy laajte équipe bu Sénégal bi lan mooy li ko manqué ndax équipe boo xamante ne bi ki ñuy wax Sadio Mané mi ngi fa bokk na ci joueur yi gën a xarañ ci àdduna bi équipe boo xamante ne am na Kalidou Koulibaly mu doon défenseur bi nga xamante ne moo gën a bokk na ci défenseur yi gën a mag ci àdduna bi ñu tudd équipe yooyu rek waaye joueurs yi ñu leen tuddal nekk nañ ay joueurs yoo xamante ne àdduna bi yëpp ràññee nañ leen ñenn ñi nee nañ Sénégal dafa ñàkk sens rek moo tax mu perte match bi ñuy laajte nag ndax défaite bi doonoon na lu ñuy xaar bi ñuy wax yéen ki nga xam ne mooy président la République envoyé na waa équipe Sénégal benn message xamal leen que ne ëllëgu équipe bi tax na ñu am espoir lool ak yaakaar que ne équipe bu Sénégal bi ëllëg dina def dara yenn supporteru colombien yu ñu taseel sax ñoom nee nañu équipe bu Sénégal bi wax dëgg yàlla mérité woon naa génn pour dem deuxième tour ñuy laajte nag ba xam ndax loolu sénégalais yi xamee nañ ko noonu équipe bu Sénégal bi ñu éliminé nag du moom dong ndax juróomi équipe bu africaine yi nga xam ne ñoo doon représenté ñoom tam ñëpp toog nañ di wane ne rek équipe bu Afrique yi ñoom amuñu chance dara ci li nga xam ne mooy coupe du monde ndax saa su ne bu ñu demee ci ñuy njëkk éliminé ci lay bokk ngir nga gis ci ku génn sax dafay jafe yenn saa yi nag ñu wax waxu arbitrage maanaam ndax arbitre bi jaar na yoon ak jaarul yoon même équipe kii di Afrique du Sud ba mu organiser coupe du monde bi amul équipe Afrique boo xam ne jot naa dem demi final loolu di wane nag ndax ñun équipe Afrique yi est-ce que suñu mën-mën ak suñu xarante mën nañ ko wane ci coupe du monde ñu fàttali ni nag seizième de finale yi ñu war a jouer équipe bu Europe yi ñoom ñoo ci ëppale ndax am na fukki équipe bu Europe yoo xamante ne ñoom qualifié nañ ci seizième de finale bi mu am juróomi équipe yoo xamante ne waa Amérique du Sud la nekk am benn équipe bu asiatique waa Japon seizième de yi nag dinañ ko jouer samedi tableau yi ñu ngi nii équipe bii di Uruguay mooy tasek Portugal waa France bu Griezmann di tasek waa Argentine Brésil bu Neymar di tasek waa Mexique Belgique bu Hazard di tasek waa Japon Espagne bu ñoom Diego kosa di tasek waa Russie Croatie bu ñoom Modric di tase ak waa Danemark Suède di tase ak waa Suisse mooy nat yi Colombie bu ñoom James Rodriguez di tasek équipe bu Angleterre bu ñoom Harry ak ñoom Jamie Vardy Russie 2018 KSTV